yàgg di nga kat sa lëfal nday wàcc si suuf Sall yàgg yàgg di nga toj sa cottu nday wàcc si suuf ne ko Salla ngaari lam tooru buur gere mais tooñu ma la nag Salla ngaari lam tooru buur gere kay dam lay tàgg doo baatare <laughs> ah eh maa ngi tàgg maa ngi maa ngi mais mais baatare nga ma nag parce que jox nga ma reer reer ram <laughs> et eh, lu a neex sax lu ma lu ma xalaatuloon toog ak président de la république surprise ñu reer waxtaan ah erreur la moom <laughs> di reer moom erreur la toog li ma tegaloon lépp laa lekk li nga ci li lekk naa lépp liggéey bi si réseau sociaux bi mu ngi rafet président. waaye gis naa ko de. Mhm. maa ngi lay félicité ak ñëpp ñi nga xam ne. ñu ngi siy jàpp am na solo donc euh, live bu ndaw la rek pour wax leen suba incha allah 15h Paris 13h Sénégal ngeen kar ñu fii ci Kali TV diggante Kaliphone Sall ak son excellence monsieur le président de tous les sénégalais borom xolu jamaa bi ki nga xamante ni moom la sénégalais dugal seen biir xol suba lay doon 15h. Paris 13h monsieur le président joxal gars yi rendez-vous pour suba. ah yow kay yaa joxe sa rendez-vous. <laughs> waaw mais damay bañ damay bañ nga biddanti rek <laughs> damay bañ nga biddanti rek. <laughs> actuellement y' a cent et quelques personnes live bu la rek publicité la rek. Ah, xam ko téyewoon ba benn dix minutes ñu solee des milliers de personnes yu nekk si baar bi. ngi dem gars waaw gars yi président fu mu ne nii mu ngi mu ngi recevoir gars yi. donc jot bariwul hmm. kon dafa ñëw pour rencontrer sympathisants yi ak militants yi. donc c'est normal donc mu ngi dem waxtaan ak ñoom suba incha allah balaa muy ñibbi Sénégal dinaa def ak moom live. mais président Sénégal ay kontaan nañ ci yow. jërëjëf maa ngi leen di nuyu. di leen ziar mhm. euh, baal nañ la <laughs> merci donc gars yi on se donne rendez-vous suba incha allah fii lay doon ci Kali TV à partir de 15h Paris 13 Sénégal ku ko tardé nga live bu tarkala monsieur le président ngi nii fii laa toog def sama reer fii ah eh grand bul daw kaay fii samay patron ñëwal nii Thierno Ndomba ma ne ko Thierno Ndomba sama patron muy bëgg daw yow président bu génne si laay bi yow ngay daw <laughs> président kii lu muy daw koo suudoto i yow suudi ma ngay ko cuudoto la ok gars au revoir ba suba incha allah à partir de quinze heures fii lay doon ak président de la république le président de tous les sénégalais jaa ngeen jëf ñu fanaan ak jàmm maire bul waxagum nag. man damaa waxul sax saxal ma man damaa waxul sax. xam nga yàlla dafa dogal nag Haalpulaar laa moom séeréer la lu ma neex lay def nag loolu moom munoo si dara fu mu ne nii lu ma neex def sama jaam nga sunu jaam nga sax parce que ba nga nekk jaamu Alaaji Alaaji Aas ba mu nekkee jaamu Alaaji Aas ah et ci toog au revoir. boo ne la mu ne la c'est pas vrai <laughs> lii <laughs> xool sedd na ah. hippil hippil xool lu fi président Macky Sall def PDG Doro wax na ko <laughs> xoolal point jëlal jëlal point gars yi ñu ngi ci ligne bi kon kon kon ñu jël keneen. parce que Kaliphone la ñu bëggal torox tàngeem kaay leen déglu dañ ko bloqué vous avez dit depuis cinq jours Kaliphone dañ ko bloqué tey ngeen ñëwaat naan Kaliphone. Euh, euh, a été débloqué mais sortez mbala ngeen génne vidéo boo xam ne Kaliphone nee na si nii passeport wala photo boo xam ne Kaliphone nee na si nii passeport c'est facile et bu ma ko amoon it jël bañu ma ko de wax dëgg fa yàlla te seen ñaan it yàlla na nangu yàlla na ma dal seen ñaan yàlla na ma dal yàlla naa ko am bu ma ko amul duma ma si daw duma ma si jooy duma ma si tëb parce que du passeport moo may dugal ajjana du passeport moo ma mën a jox alal encore une fois di nga gis ku yor vingt passeport diplomatique si poosam amul lu mu ndekkee suba c'est quoi passeport ngeen bëgg sonal nit ñi naan rajo yi ngeen di taq président Macky Sall ni président Macky Sall naa ngeen di toog di duul naan Kaliphone ba mu dem mairie dañ ko rejeté ku dem mairie du am livret de famille ku dem mairie duñ la jox certificat de mariage ku dem mairie doo am doo am doo am copie intégralité ak yeneen ak yeneen di ngeen dee man samay document mu ngi nii lépp mu ngi noonu ba ca ba ca ba ca ba ca ba ca ba ca déclaration impôt yëpp mu ngi noonu waaw ngeen toog di ubbeeku rek di fen rek waaw waaw ba ca déclaration impôt lépp ngeen di fen rek di wax rek bëgg teg te ngeen xam Kaliphone lu mu añee tey bëgg nekk Amérique bëgg xam Kaliphone la mu ndekkee mënul nekk man bu mu leen waxul sama vie mënul leen wax ba xam sama vie mënul booy bi ngeen amal affaire de booy Dalifort waaw moo nekk nii dama leen koy won ngeen capturer lépp comme seen fenkat yi ñu ngi toog seen internet bi am na séquence bi may yónnee naan Kaliphone amul jabar mënul biiral xanaa seen bàyyi ñoo mënut biiral ngeen yaakaar mënut biiral lii lan la lii du identité de l'enfant nom de famille ak yooyu ba may ñëw dama jaar sax mairie pour def reconnaissance gis ngeen acte de reconnaissance république française pour sama soxna sax yàlla dafa def jigéen wérut la boo demee boobu jigéen wérut sa soxna da ngay def acte de reconnaissance mu ngi noonu acte de reconnaissance numéro sangam jël leen numéro bi ngeen dem ci mairie ba ngeen laajte gis ngeen Kalidou du date de naissance gisoo lii ak lii ak lii gis ngeen Yveline gis ngeen dem leen mu ngi nii yéen da ngeen a baax lii la dem leen di koy won pour seen duulkat yi après nag bu leen leen rus ne leen ne ah yaa ne woon Kali mënoon a def acte de reconnaissance te xam nga ni France mënoo fa njuuj njaaj kayit yi mënoo dem ci mairie rek ne sama soxna daa nekk en état dama bëggoon def acte de renaissance pour sama doom incha allah rabbi bu ko yàlla may mucc sama doom judd foofu doon français parce que sama soxna française la dégg naa seen live nga naan Californie mënoon na toog sax bu amee foofu doom parti parta lii de da lay koy won te lu ngeen bon bon bon bon bon bon xanaa rek bu ma amuloon fii am ma mu réer bu ma yóbbee sama livret de famille yóbbu sama que sama doom bientôt foofu xanaa bu ma demee ambassade bu France bii rek wane sama lii ma woo sama soxna na ma yónnee carte d'identité mu envoyé ma ko ma dem ñu may ma visa bu bees poul parce que dëkk de droit lañ nekk France. dem Espagne yenn walaa kaane yi dem France yenn walaa kaane yi mel ni Tunkara nekk Amérique mais Californie mënul dem France mënul dem Amérique mënul dem Japon mel ni seen baay ñoo moom France mel ni Pastef ñoo moom France. non léegi nag xam nga man du ma nëbbu dara xam nga bu ma demee ba da leen di wan sama livret de famille maa ma xanaa maa sañ si yéen si internet bi kan moo ko sañ kenn kenn si yéen du génne livret de famille amul xanaa livret de famille nag mënu ma ko créer balaa ngeen naan euh, faux et usagé faux laak xaw ma lan est-ce que day ubbeeku sax ma xool euh, que document bi fii nu mel ci biir mosuma ko ubbi sax parce que lii kii la gisoo mu ngi nii bu bu lay doon ville de Poissy foofu laa dëkk dans le soixante-dix-huitième arrondissement livret de famille mairie état française ma dégg kaña bi naan ba mu demee mairie dañ ko rejeté waa mairie bu la rejeté dina la jox lii mairie bu la rejeté mairie bu la rejeté ndax di nga ñëw naral tegu si yoon parce que tubaab lépp droit la sa soxna bu nekkee en état da ngay ñëw nga reconnaître na sa soxna bi état bu mu nekk yow la reconnaître nga sa doom muy am na trois mois ba ci kaw foofu ngay commencé boo amee ñetti weer jëm kaw nga dem nga reconnaître léegi kayit yi ñu la jox tey sa soxna buy mucc ëllëg jaratul ngay dem mairie ba ñu lay wutal bulletin de naissance lii hôpital nga koy yóbbu donc à partir de hôpital waa hôpital ñooy yeeg seen bàyyi bu ngeen nee da ngeen di signaler koo xamante ni yàlla mu ngi koy taxaw yàlla suñu borom ngeen di xeexal mën ngeen xëy di signaler seen oto ne teel bu ngeen demee police tey lan ngeen di signaler way lui c'est un vendeur de yamba police française buñ la xoolee xam nañu looy def si dëkk bi looy dugal di génn yëpp y a des caméras de surveillance boo taxawee ci gaar bi caméra yeeg lay xool boo taxawee ci mbedd yi caméra yeeg lay xool boo duggee ci bus yi caméra yi ñu ngi lay gis boo duggee ci train yi caméra yi ñu ngi lay gis France ngeen wax de ñu lay def ay fichier S ak fichier P yu kenn xamut at yi ma fa nekk yëpp bu ma police française doon recherché du yéen yéenay dem di signalé ci parce que ku ne am nga fa sa adresse am sa code postal waaw yéen xam ngeen France ngeen wax de xaw ma beneen dëkk nag xaw ma ban dëkk dew ma Italie daw ma yeneen mais xam ngeen dëkk France moom ak police francaise lu mu bëgg suba suba daf koy am mais topp leen wax ci di wax rek topp leen rek après dem leen wane livre bi xaramoo naa leen ko baax demal nga ne il a même créé un faux livret après ngeen capture dem leen ville de Poissy te bu ngeen demee sax du ngeen a am accès si document jàmbur yéen xam nga lu ngeen waaw exactement xaar seen fen yëpp mooy bu ñu demee dinañ wax lii dinañ wax laa tubaab sa ko bokk ak nday ak baay sax bu ñëw ne day vérifier sa accès fii ñu ne la déedéet bu ngeen bokkoon nday ak baay lii pour nga amoon accès fii da ngay andi sa carte d'identité ñu xam ne yow la ñu may la nga vérifier mais boo bokkoon ak nit nday ak baay